di ñëw ak yéen ci yóbbalu aljuma bi di di ñëw ci tontu laaj bi laaj boobu mbokk mi doon laaj ci bismillahi rahmaani rahim yi dañu ko doon firil rek fathul wahab xaaju ñaareel bi lañuy ñëw nii jël ci dara tey ba beneen aljuma ñu koy mottali ba keroog muy jeex incha allahu Euh, fi ñu fi ci tege ca lañ ca la ñu woon mooy sëriñ bi da caa teg ne bismillahi rahmaani rahim boo ko jàngee téeméeri yoon ak fukk ak ñett ci bisu aljuma fekk imaam bi mi ngi toog ci kaw minbar bi nga jàng ko lim boobu mu wax cent treize téeméer ak fukk ak ñett nga bàyyi nag ba imaam bi di ñaan nga ñaan ànd ak moom sa aajo la nga ñaan yàlla dana la ko defal mooy li mu wax ne wa minha ann man qara'aha mi'a wa salaasa ashara yowma aljumaa والخطيب على المنبر ويدعو مع الخطيب ويسأل حاجته يحصل مطلوبه neena it bismillahi rahmaani rahim ku ko jàng ci bisub dimaas bu jant bi day génn bu jant bi fenkee rek te fekk boobu yaa ngi jublu xibla nga jàng ko limu yonente yi alayhimu salaatu wassalaam mooy jaysun ñetti téeméer ak fukk ak ñett tëje ko nag julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yoon nga ciy teg yàlla dana ko defal wërsëg bu ko bett boo xam ne moom du ko foogee yàlla daal ci ak mbaaxam dana ko defal wërsëg wu yaatu te wërsëg wu koy bett lay doon woo xam ne sax du ko fooge moom la wax wa minha an man qara'aha xinda tuluci chamsi fi nahaari al ahad wa huwa mustaqbilu alxibla bi adadi almursalin talaata miatin wa talaata ashrata marra وكذا يصلي على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مئة مرة يرزقه الله تعالى من حيث لا يحتسب بفضله وكرمه بين يديه تقنتي بسم الله الرحمن الرحيم كوكو سخال جانج تلمب حروف أبجدي مانام أبجدا بولمي بوحادة حرف حروف يبه lu la jox lim boobu nga koy jàng te mooy sept cent quatre-vingt-sept juróom-ñaar téeméer ak juróom ñaar sept cent quatre-vingt-sept ànd ci yéene ju sell nee na boo ko jàngee ci am mbir moo xam ne dalaa yitte lool yitte ju far joo xam ne da bëgg yàlla fajal la ko soo ko jàngee lim bii mu wax limu xuruufi abajada yii ci yitte jooju yàlla dana la ko fajal moo xam yitte ja daa aju ci wut ngërëmul yàlla baa nga bëgg caa jañ lor am lor ju tege woon sa kaw nga bëgg mu yàlla jañal la ko baa sax ay noon nga bëgg yàlla musal la ci say noon baa ñu la nar a tooñ baa sax nga faj nga ciy sàkku yitte yàlla nga defal la nga mën koo jaam bu baax a baax daal loo di sàkku rek baa ngay sàkku bénéfice ci wàllu liggéey moom daal li mu ko waxee ci tënk daal loo man di sàkku rek yàlla dana la ko defal ci barke bismillahi rahmaani rahim mooy wa man adaama ala wa man daama wa anna man daama ala qiraatiha bi xadadiha ala xasabi abajada wa hiya sab'u miatin wa sab'un wa thamaanuna marra bi niyatin xaalisa في أمر مهم في رضا الله تعالى وقضاء حاجته أو لدفع الضرر من الأعداء والظالمين أو الطاعة أو لجلب أو لطلب الربح فإنه يربح بإذن الله تعالى ويحصل له المطلوب ببركة بسم الله الرحمن الرحيم تكنتنا بسم الله الرحمن الرحيم كوحمنا دانا كوي xam ne dana koy ñaari junni ak juróomi téeméer deux mille cinq loolu nag diirum ñeent fukki suba lay lay tegale taxoo ko di ko jàng lim boobu ñu joxe ñaari junni ak juróomi téeméer ànd ceeg pas-pas bu wér-wér ànd ceeg bàyyi xel bu baax jagle ak ngëneel yi nga xam ne yàlla def na ko ci bismillahi rahmaani rahim sëriñ bi nee di loolu ku ko saxale noonu yàlla dana ko defal ak ubbi ko ci xolam xol bu leer naññi xamal ko ay kumpa xamal ko xam-xam yu baree baree bari yoo xam ne xam-xamu ladu nii lay doon xam-xam ba nekk fa yàlla xamal ko it ay secret yu yéeme yéeme mooy wa minha anna man daama ala qiraatiha baada salaati subhi arbaina sabahan 2005 مئة مرة باحتقاد صحيح وملاحظة الفضائل والخصائص فيها فتح الله تعالى في قلبه فتوحا من الغيب والعلوم اللدنية والأسرار من الغرائب كون بكينا درس بي موم يوبل بي في ليام جمي تونت لي نك دي فتح الوهابي ما تغوت دنجكو جيلات بنن أجمع وامي مات تاي دانيي يام في با بنن yàlla nañu yàlla dolli tawfeex dolli ñoo nangul ci baaxu sëriñ bi amul benn bëgg-bëgg wala benn yitte wala benn xemmanteef wala lenn ju benn jublu pour ci wax